mbokk yi asalaamaaleykum euh, mbekk la ñuy ama di feggoog yéen liñ euh, koy amalee àllarba bu jot euh, su 28 heures jotee ci Walf euh, TV ci seen émission euh, di Selebe Yoon Selebe Yoon ñuy euh, pencoo lépp loo xamante ne rek dafa yemook actualité ay bés bi moom lañ fi nar wéccoo ab xalaat ak ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc jëm ca fànn googu ñu naan leen seen kolute di suñu mbégte ci leeru jamono tey ñu dalal ci plateau bi Mout Bane bokk di njiital jubanti Sénégal bokk ci Manko watu Sénégal ak ki nga xamante ne moo di may Meissa Mayekor

assistance de l'émission merci beaucoup euh, Maïssa Mayeko euh, Diouf Mout Ban waaw ay maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ah. di nuyu euh, ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi am habitude di suivre émission bi di nuyu également tout le l'équipe de Walfadjri di nuyu Maïssa mm-hmm. Maykor Diouf bi nga xamante ni moom lañu war a toog waxtaan tey jii ci ci def débat tey jii mm-hmm. ci ah. jërëjëf kon suñu invité suñu nuyoo noppi rek du def lu dul soobu ci li nga xamante ne moom moo di waxtaan wi ay bés yi li nga xamante ne moom moo lëmbee actualité bii ci biir Sénégal ak ci biti réew yëpp mun nañoo wax ne mooy coow li nga xamante ne moom moo am ca Gambie fi mu nekk nii kenn xamul fu wànnante di muccee ki euh, gëtëm ndax ay fan dong des ki nga xamante ne moom mooy le président déchu di Yaya Jammeh war a jóge ca bopp nguur ga mu mel ni day langaamu ba euh, léegi ci information yi mujjee rot moo am na ay euh, takk der yoo xamante ne ñu wër fi mu nekk nii réew Gambie bi kii di eh, jiitu réew ma ma nga fa wala nekku fa loolu yëpp defe naa ne ci biir débat bi itam dinañu waxtaan lan mooy doon posture am ak euh, taxawaayam euh, tey euh, mu situation bi tey ni muy tëddee rawatina ñaari fan des ki nga xamante ne benn fan sax laay wax ndax ëllëg la kii di Adama Barrow war a prêter serment ndax dina waatam déet ndax kii di Yaya Jammeh va lâcher du lest li muy ngànkoon dina ko bàyyi bu fekkee ne tey takk der yi encercler nañ Gambie ndax ngànk googu du tax tey mu ànd ak tiitaange ba deltu ginnaaw comme ni ko waxee euh, Awa situation bu délicate la ñu nekk di vivre nii entre en tout cas en Gambie. Mhm. Euh, li nga xamante ni mu tax mu délicate mooy position Gambie ci biir Sénégal. Euh, li may rafetlu d'abord mooy position CEDEAO parce que CEDEAO au moins def nañ ay ini def nañ ay jël nañ initiative dialogue pour éviter confrontation mais man li ma remarqué mooy mauvaise volonté bu ma bu bu bu Yaya Jammeh nga xam ne à chaque fois day camper sur sa position qu'est-ce qui s'est passé dem nañ élection présidentielle résultat provisoire yi génn ñi nga xamante ne war nañ joxe résultat ñu joxe moom mu jóg féliciter le gagnant dem ba ci biir reculer du ma dugg ci ay considération ay cours d'appel ak yooyu quoi parce que moom euh, je me rappelle dernière élection yi bi mu amee Ousseynou daabo dafa demoon recours mais terew ko woon moom mu def prestation de serment moom tey mënoon na bàyyi Adama Barrow mu def après sage serment moom mu def recours après cour suprême gis loolu mais le problème mooy Yaya buggul dem parce que moom dafa yaakaar ni Gambie moom moo ko moom rawale na famem ñu bëri ñu ngi génn di quitté di quitté di quitté Gambie mm-hmm. parce que aujourd'hui il est inévitable que bu bàyyiwul fii ak minuit dañuy dem vers une confrontation te loolu arrangé wul Sénégal surtout euh, arrangé Sénégal parce que de un Sénégal euh, Yaya dafa yaakaar ne Sénégal daf koy xeex mais je pense que moom moo am comportement bu irresponsable et bu insolent vis-à-vis des présidents du Sénégal depuis Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba tey ji Macky Sall man je suis dans l'opposition mais dans ce dossier je soutiens la décision du du, du gouvernement bu fekkee parce que quand même c'est notre état ñun mënuñ man en ak que sénégalais mu ma opposé wu ci décision bu gouvernement état du Sénégal di jël parce que Gambie il la a le pont de de bi nga xam te ni euh, Barre de financé na ko à plusieurs de francs CFA. depuis 2011 ñu woon ko def mu lànk di ko def te def nañ pose première pierre y a un trafic de chanvre indien et de bois au niveau de la Gambie États-Unis ñi ngi biir chinois yi ñi ngi biir Gambie dañuy couper bois bi dugg Casamance dugg ba Gambie yóbbu ko seen yóbbu ko Chine ak euh, agissement yi muy def di bloquer circulation bi ak insolence ak ses relations avec le MFDC tey aujourd'hui Sénégalais yi pour nañ xam ne tey Yaya Jammeh jóge Gambie ñun moo ñu arrangé parce que quelque part les états n'ont pas d'amis les états n'ont que des intérêts et notre intérêt tey mooy Yaya Jammeh quitter mais là où je d'accord avec le président Macky Sall c'est le fait que mu accepter d'accueillir Adama Barrow Sénégal boo xoolee bi nga xamante ni Guinée Bissau Guinée Conakry amoon nañ problème le président Abdoulaye Wade dem intervenir foofu ànd ak Ellen Johnson Sirleaf wàcc Guinée Conakry classe politique bi yëpp dañ ko mere woon ñi nga xamante ni sax dañu àndoon ak dadis parce que Euh, Libéria dafa dafa dafa jigéeg li ñuy wax Guinée forestière ñu population bu fi nekk mooy population ñoom dadis dañu proche ak population bu bu Libéria bu kii bi. c'est des c'est des c'est des forestiers yoo xam te ni ñoo nekk Guinée Conakry une partie nekk au Libéria. tey bu ñëwee Guinée ablawaat bi mu àndi ànd ak Ellen Johnson Ellen Johnson Sirleaf ñëw Guinée Conakry les Guinéens bi ñu ko gisee dañu ne carrément kii dafa jël fait et pour la partie pour en tout cas les ceux qui sont avec acte boobu gars yi dañ ko interprété woon ba finalement ils déglootu déglootuñu woon Abdoulaye parce que pour ñoom dafa ñëw pour conforter le régime de de de Moussa Dadis moo tax tey le fait que le président y Macky Sall accepté accueillir dadi euh, kii fii Adama Barrow quelles que soient les les explications c'est vraiment une maladresse te loolu dafa commencé bari une maladresse bii maladresse la euh, ay Adama Barrow na devait pas venir au Sénégal mm. waroon na dem beneen dëkk jën sa sa li nga xam ne tey jii moo mooy président CEDEAO mënoon na ko accueillir chez elle mm-hmm. ba problème bi jeex mu ñëw beneen bi mooy erreur boobu erreur la mais erreur bi la même la même erreur Macky Sall defoon na ko Guinée defoon na ko Burkina Faso dem pour négocier mais di demander à ce que ñu vote amnistie pour les pour la les en tout cas ceux qui sont avec Blaise Compaoré mu nekk maladresse bu rëy def na ko en bi nga xamante ni crise bi éclaté na au Mali ñu toog Mankeur Ndiaye moo njëkk wax ni 2013 moo njëkk a wax kenn du yónnee ay mil ay au Mali. ñu dem ba ci France yónnee ñu soog a di yónnee yi nga diplomatie dafa nekk affaire am sensible. Mhm. c'est trop sensible te c'est vrai président de la République moo c'est son domaine privilégié mais quand même bu ciy jël yenn yenn décisions yi war a waxtaan ak son entourage di bañ a topp xolam. parce que ñun li nga gisee mu communiqué moom bi bi ñu ne Adama Barrow moo gagné da senti ni ñoom dañ ko dañu mere woon Yaya mm-hmm. de gis nga ministre bi wax rapidement di yàkkamti déclaration Mankeur Ndiaye mu répété ko encore sur une chaîne de télévision boo xam te ni aujourd'hui chaîne boobu ñoom dañu am problème ak Yaya Jammeh parce que Yaya Jammeh dala duñ ubbi station seen dëkk ci dëkkam télé boobu tey ji boo gisee tey ji mooy mooy toujours di taper sur Yaya Jammeh waruñu diplomatie c'est pas ça mm. les relations internationales également c'est comme ça du affaire xëccantoo defantoo da ngay ngay xalaat bañ di lor sa sa sa réew mm. aujourd'hui bu bu guerre amee Gambie Sénégal mu ci gën a sonn école yi wër Gambie yëpp côté Karang côté Nioro ak côté Casamance yëpp day tëj mm-hmm. circulation bi day bloqué te on risque même de reporter les élections législatives parce que classe yi nekk de vote lañu. répercussions yi te répercussions euh, ci point boobu sax hmm. démb suñu confrère Mame Birame Wathie mi ngi koy wax hmm. les errements de euh, du président Macky ci wàllu diplomatie bi li ko tax a wax loolu mi ngi tëddee ci li nga xamante ne mooy euh, doxalinu président Macky ci coow li nga xamante ne moom moo am ca Gambie diggante Yaya Jammeh ak ki nga xamante ne moom moo di Adama Adama Barrow euh, Moutbane wax na ko léegi prise de position boo xamante ne dafa flagrante tey ndax njiitu réew bi waroon na am taxawaay euh, boobu ak dalal Adama Barrow itam ci Sénégal ndax lu waroon la ndax Nigéria c'était pro euh, proposé ak yéex ko Maroc waxi nopp ak ñi nga xamante ne mooy Ellen Johnson Sirleaf Libéria waroon na ko mën a dalal ak yi ni mel. voilà merci beaucoup avant may tontu ci loolu dama bëggoon ñëw d'abord sur le principe. Euh, par rapport euh, ak situation bi am en Gambie di partager ak moom vraiment argumentaire am effectivement euh, je pense que le président Macky Sall comme la CEDEAO ils ont toujours privilégié une transition pacifique bon maintenant topp nañ yaa Jammeh topp nañ ko topp nañ ko ba fi may waxe yow di on ne désespère pas yaakaar nañ ne dina am une solution heureuse ba à on espère on espère jàmm moom loo ko amee ak moment boo ko amee baax na parce que comme ni mu ko waxee ay bu amee euh, conséquences yi mën na mën na mën na law te dañuy faral di wax naan euh, mën nga xeex ba am ba gagné mais pour nga am paix day durable donc moo tax euh, option CEDEAO muy option président Macky Sall mooy ñu continuer am espoir. poussé ba mën a am jàmm. Mhm. maintenant par rapport euh, fi nga xamante ne je suis complètement en porte-à-faux ak moom xam nga le commentaire est libre. Mhm. article boobu je l'ai lu. Mhm. mais commentaire la xalaat la journaliste def. mais en matière de diplomatie le rayonnement de la diplomatie sénégalaise depuis 2012 kenn natable ko. yaa ngi wax sànq la crise. mais xalaat boo xamante ne dañ ko relater ay venir au fait. la crise burkinabé le président Macky Sall s'est très bien distingué résoudre ko ci jàmm ak salaam c'est pareil pour la crise au niveau du Burkina euh, burkinabé comme au niveau de la Guinée-Bissau le Sénégal c'est-à-dire il faut éviter d'extirper le Sénégal de la CEDEAO xam nga euh, le chauvinisme des États puissants le Sénégal pouvait dire voilà j'ai des intérêts stratégiques en Gambie du ma xaar sa ay o ma gën am une force militaire je je euh, vais fermer mes mes frontières je vais même attaquer au besoin mais Macky Sall doxul ci yooyu puissance gëmuñu loolu li ñu gëm mooy la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest tey actuellement loolu mooy organe bi nga xamante ne ñun on s'est adossé à cet organe mesure boo mënta gis ci dossier bi nii muy démarche pacifique muy accueil yu Adama Barrow à Dakar probablement ñaan nañ ko yàlla même attaque boo doon aussi ça sera la décision de la CEDEAO donc loolu par rapport à ça euh, y a errement amu fi amul d'ailleurs faute diplomatique balaa nga koy wax ñu xaar les conséquences tey Burkina Faso ñu ngi si jaam ak salaam Guinée Bissau ñu ngi si jaam ak salaam donc je pense que le commentaire est libre mu bu la neexee nga nga jàpp ne ay erreur mala erreur la mais erreur amul foofu au contraire la diplomatie sénégalaise au moment où je vous parle est très rayonnante et c'est est respecté le Sénégal est respecté consulté écouté partout dans le monde je vous rappelle que le conseil de sécurité de Nations Unies bi ñuy élire sur les 191 voix on a eu les 187 loolu c'est un pays respectable moo koy am maintenant vous êtes dans l'opposition vous jouez votre rôle loolu loolu on vous le concède mais en tout état de cause le Sénégal demeure un état respecté sa diplomatie va très bien mmh. maintenant euh, on est dans un cadre sous-régional li ñuy li chef d'État yi tënk ci loolu la ñuy topp mais bàyyi leen di jël Sénégal di ko extirper de la CEDEAO position de principe yi ñuy arrêté au niveau de la CEDEAO position yooyu la ñuy doxal en réalité loolu moo fi am mais tey ji euh, ci fànn gi nga xamante ne moom lañ doxalee ak suñu diggante ak Gambie euh, tey euh, ni ñu ko waxee sànq mu waxaat ko y avait des pays yoo xamante ne ñoom ñoo gënoon a mënoon a ibbeeku ngir dalal Adama Barrow pour mu bañ a doon benn émission boo xamante ne day flagrante trop. non y a pas flagrant amu fi amul benn pays bu gën a stratégique bu gën a adéquat ad accueillir Adama Barrow du point de vue historique. ñun ak Gambie xamante nañu du point de vue stratégique Adama Barrow bu dul as tuut dégg na ko wolof donc yaa ya ya faut pas vraiment créer fu problème amul ñun la gën a jege mais y' a aucun problème mu ñëw au Sénégal am na fi ay mbokk am na fi ay parents tey si ce n' est pas pour ne les Gambiens bi bi ñu sentir tension ak problème pourquoi jëluñ billet d' avion dem dem dem dem euh, Nigéria mais Sénégal la ñëw parce que Sénégal moo leen lii de par l'histoire par le sang donc Adama Barrow mu ñëw fii. lu rafet la lu ñu war a rafetlu la mais il faut pas ñu gis ko bu ko def un problème majeur alo ko c'est pas un problème. Euh, Mouride Ben tey euh, Jammeh li nga xamante ne moom lay doxalee gis nañu démb mu décrété euh, état d'urgence kuy def yi ni mel di poser ay jalons c'est-à-dire que pareegul pour sax. cédé d'un iota li nga xamante ne moom moo di euh, nguur gi ngir may Adama Barrow mu ñëw ak si CEDEAO am na position boo xamante ne taxawee nañ ko tey suñ demee ba takk der yi encercler Gambie jox ko ultimatum minuit pour euh, génn dëkk ba ko may ñoom dinañu cong te ni ko waxee cong gi Sénégal du ci mujj répercussions yi dina gën a métti sax si ñun ndax doomu Gambie yi ñu ngi daw si di làqatu ci euh, Sénégal itam te mun nañu wax ne ay points stratégiques yoo xamante ne ñu ngi ci biir réew mi. waaw xam nga xam nga loolu lépp tey li ko waral. su ma suivre logique gu Mayakor euh, jàmm ji Adama Barrow am tey jii ak Macky Sall bu ko Macky amoon ak Yaya Jammeh nga xam ne Yaya Jammeh au pouvoir kon Yaya Jammeh du nekk di waxtaan ak Alpha Condé. Mhm. kon Macky mooy gérer dossier bi. ba réglé ko ba Macky ba sax s'il le faut Yaya ñëw Dakar ñu ñu installé kële. c'est parce que Macky depuis le départ dafa dafa dafa jël po dafa jël position depuis les premiers résultats les premières tendances à travers ministre des affaires étrangères mu ñëw wax fii dem en France encore c'est en France qu'il a décidé moom ak Hollande que dañuy def intervention militaire bi gars yi pare nañ bu yàgg Yaya Jammeh bu pare CEDEAO pare nañ bu yàgg parce que en France a France à Hollande à promis à Yaya à Macky de l'aider en tout cas d'aider ñu dem def intervention militaire l'intervention en ce moment ni ñu am ñu euh, France Afrique ñu gis photo Yaya Jammeh euh, euh, Barrow ah, taxaw ak Macky taxaw ak François Hollande après Macky moo ko jël ci avion Macky bi mu c'est Macky Sall mu ki a amené Adama Barrow fii Dakar ci avion mais ça quand même c'est c'est révélateur ça la montre aujourd'hui dafa dafa bokk ci coalition anti Yaya Jammeh te en fait problème bi waru ko woon gérer noonu déggoo ma ne la tey jii même bu fekk ñun en tant que état dañu war a jàppale suñu dëkkan ah, mais quand il faut que ñu reconnaître que Macky a trop d'erreurs dans la gestion dans la dans la gestion de cette de cette crise là depuis le départ boo gisee tout cas trois pays ñooy dem di di waxtaan ak Yaya Jammeh trois pays anglophones yooyu mënoon nañu continuer di ko gérer ba gérer waale Adama Barrow mu bañ a ñëw fii parce que ñun depuis il euh, y a une semaine doon nañu fa def ay marche anti Sénégal di saaga sénégalais loolu risque la sax ci sénégalais yi xamante ne ñoo nekk en en Gambie président Macky Sall dafa xam ne daf ñu jabootu ñun mais dafa jabootu également sénégalais yi xamante ne ñoo nekk en Gambie ba décision bu muy jël ci décision boobu mu xalaat ñooñu bu mu xalaat rek ñu nekk fii nii parce que ñooñu tam jabootam lañu tey jii li mu def yàpp Adama Barrow tey jii sénégalais que moom moo teg un acte ba nga xamante ni dafay tax sénégalais demee tey jii bu ñu demee tey mais ah euh, yow dama lay expliquer gis nga depuis 2012. c'est un débat Dakar dafa nekk euh, la porte d'entrée des occidentaux en Afrique. Mm-hmm. dafa am un problème géopolitique. Gambie problème bii nii. Macky dafa falu le 12 de 12 mu signé les accords de défense. Mm-hmm. français yi ñëwaat. récemment en je pense en mai 2016 lañ voté assemblée nationale mu signé beneen accord de défense avec les américains ñu ñëwaat quand les russes. ont, en tout cas l'OTAN mi ngi déployé au niveau de l'Afrique de l'Ouest mais maintenant pour des intérêts géostratégiques ñoom it les Russes sont venus signer des accords de défense avec la Gambie am fa base militaire parce que sur les ressources qu'ils ont fait en en en Ukraine Ukraine bi nga xam ne tey am bi nga xam ne tey les Américains. dañu euh, dañu si a gisee ni am euh, Russie Américains bi ñu gisee ni Russie dañu bëggoon jël Crimée. Mm-hmm. am nañ base Sébastopol mais américains yi dañu ñëw renforcer seen lien ak ak Ukraine parce que Ukraine dafa nekk benn zone bu stratégique bu takkaloo ak benn mer bu ñuy wax mer Caspien nga xam ne c'est l'unique ouverture à à l'océan ci zone boobu noonu mhm. problème boobu moo ñëw am tey ji ci ba léegi ni ci ci Gambie léegi ni actuellement day nekk entre la CEDEAO et Gambie entre le Sénégal et la Gambie entre la France les États-Unis et la Russie dans la même zone parce que tey ji dafa am lu feeñ muy pétrole ak gaz

am na état islamique ñu ngi e, am ay zone au niveau de Sirte ak Benghazi tey jii euh, Boko Haram en foofu état islamique la Boko Haram mi ngi Tchad mi ngi mi ngi Niger mi ngi Cameroun mi ngi Nord aujourd'hui bu fekkee Gambie dafa am problème mais te ñu wut zone pour lax dañuy daw ñëw Gambie te boobaa aujourd'hui dafay am jonction avec le MFDC te loolu vraiment ñaanuñu ko yàlla uh-huh. euh, Meissa tey euh, ci li ñu dégg yëpp euh, intérêt yi nga xamante ne yëpp ñoo nekk en jeu est-ce que nos gouvernants aussi tenoon teniroon nañu compte ils ont pesé le pour et le contre avant ñuy jël benn prise de position également ca fànn boobu non c'est-à-dire Mourban man je t'invite à être cohérent gis nga commencement argumentation da nga vraiment cohérent sur le principe n'est-ce pas euh, bi nga xamante ne moo. non je je termine. da ngaa wuyu ci question non non damay ñëw. non bul yàq débat ma débat bi. du yomb wuyu ma débat bi du ci li soo ko soo ko waaw non non soo ko bëggee def nii. il faut me répondre par par par xool da may. doo yaa may question nga may tontoo. ma ne je may ko may wax non non man tey ñun amuñu benn honte wala benn problème pour accueillir Adama Barrow parce que c'est la volonté populaire loolu la c'est le choix des des Gambiens c'est le choix du peuple loolu mooy la souveraineté nationale. loolu le peuple gambien lan la choisir. que ñu dalal Adama Barrow ñoo fal Adama. Barrow bu ñu ko falee. Ah. mais ban problème lañ ci am pour le ministre des affaires étrangères oo oh, oh. ko parce que moom li muy wax dafa am amalgame. bi ministre bi oote c'est bi après bi volte face bi amee effectivement bi bi victoire bi amee ñëpp dañ ko saluer ñëpp tàcc ko déglu benn ministre mu wax dara mais bi volte face bi amee loolu loolu c'est une injure à la démocratie loolu du Sénégal kese Nations Unies ñëpp ko def ñëpp ñoo oote ne carrément on reste sur les principes li li li. yaay jàmm bëgg a doxal ànd ci mais loolu kese la faut pas maintenant ngeen attiser xam nga def nga fi sa argumentation dugg ci loolu moom yéen vous êtes des spécialistes c'est loolu la ñuy wax le nihilisme jàpp ngeen ne luy ñëw baaxul dëkk bi day tàkk mais en tout cas daal ñu ngi ñaan yàlla Sénégal jàmm am fi ak salaam maintenant comme neex nag la commentaire est libre comme neex nga dugg fu la neex. dugg ci géopolitique géostratégique. mais mais euh, kon est-ce que euh, ci prise de position bi est-ce que du ces intérêts qui sont en jeu moom moo tax euh, tey le chef de l'État am position bi nga xamante ne am na. est-ce que tey waru woon afficher benn neutralité également. donc c'est-à-dire question de neutralité. parce que le Sénégal c'est un pays souverain. Gambie di pays souverain ñu bokk suñu CEDEAO mais mu nekk suñu. pays frontalier bokk si ñun nekk suñu biir mais comment se fait-il que mu am une élection en Gambie am ay problème le Sénégal du ci wax mais loolu c'est une fuite de responsabilité loolu ça n'a rien à ak ay position ak ay intérêt Sénégal kenn ëpp ko intérêt en Gambie mais sànq bi commencé débat bi nee naa la on n'a pas mis en avant nos intérêts étatiques on s'est conformé donc à l'agenda de la CEDEAO mais bu ngeen buggee pour des problème de d' opposition d' argument jël mbir mi yëpp bu ko laxas ci président Macky Sall non quand même vraiment vous passez à côté en tout cas daal man li ma gëm mooy y' a pas de mauvaise prise de position li Sénégal def du anti anti Jammeh c' est trop dire le président Macky Sall a fait combien de déplacements en Gambie il a fait beaucoup plus de déplacements en c' est à dire le Yaya Jammeh wax nga ko sànq c' est un voisin qui n' est pas élégant n' pas qui bloque. la trans euh, gambienne façon gérer bu nekk état yi jëm nañ ko ko gérer mais c'est mais peut-être tempérament am la jikkoom la mais néanmoins Sénégal ba fi may wax yow nii ñu ngi jéem a gérer euh, euh, non notre relation ak Yaya Jammeh mais point est-ce que le fait que Yaya Jammeh nous a fait voir des vertes et des pas on s'est laissé faire moo tax euh, tey tamit euh, mu gën a amaat euh, fit bi pour taxaw jàkkaarloo ak ñun ndax moom jàpp na ne jàkkaarloowul ak waa CEDEAO mais Sénégal ci boppam lay jàkkaarloo président Macky Sall lay jàkkaarloo exactement là le débat devient intéressant malgré tout ce que Yaya fait contre le Sénégal muy euh, un comportement qui délicat musu leen dégg Sénégal malgré suprématie économique bi mu am si Gambie mu def ingérence wala mu fermer ses portes à chaque fois ñu ngi bàyyi des va-et-vient mu am une fluidité du trafic malgré que moom ñëw na fi sax ba tëj fi suñu frontière tëj frontière bi ñu def contournement. bi ñu mais est-ce tey moo tax mu yàpp ñu. non non non c'est-à-dire pour li ñu doon wax du question la yàpp un état souverain c'est un état souverain diplomatie dafa am prix tey peut-être suñu ñëwoon engagé sa bras de fer ak yaay Jammeh conséquences yi ngeen di wax ni peut-être eggoon nañ ci bu yàgg. mais c'est la stabilité petit à petit ñuy liggéey petit à petit ñuy liggéey effectivement wax na ma ko BAD financé nañu un programme de plus de cent six milliards pour pour pour ce pont la mais ba fi may waxee ak yow dafa am blocage mais dès lors que c'est un pays souverain mënoo ñëw brusquement euh, sur le plan économique bu ko teg yéen en tout cas loolu c'est pas euh, l'option euh, diplomatique du de l'État du Sénégal voilà euh, instant bi fi situation bi euh, toll euh, muut gis nañu ne c'est à quelques heures minuit soreetul pour mooy deadline bi ñu joxe Jammeh pour mu jóge fa les forces de l'ordre sont déjà sur place. Mm-hmm. tey on peut dire que c'est inévitable assaut boobu am fi nga xamante ne moom moo di Gambie. mais loolu c'est tellement évident que démb dama toog benn colonel gambien woo ma mu ne ma Yaya dafa actuellement dafa enregistré ay film vidéo déclaration. yoo xamante ni tey bu xeex bi bu amee xeex JRTS bu ko gars yi gaawul jël day dawal ay vidéo yu muy génne am te ne enregistré na ko ba pare et que il peut même il a mis un dis en place un dispositif boo nga xamante ni mën na sax di com communiquer avec les ses troupes en dehors même de la Gambie ce qui laisse croire que mën na daw mën na daw ci guddi gi pensant faisant croire aux gars que mi ngi fa dawal ay vidéo là vraiment je je tiens à ce que peut-être y on a des spécialistes l'armée sénégalaise en tout cas la CEDEAO peut-être que ñoom ils de ça mais c'est quelqu'un qui est capable de fuir et que là sa télévision di génne ay vidéo ñu yaakaar ne ma nga fa fekk dem na gars yi di dóor ay munitions de xeex vraiment je loolu moom c'est une information à vérifier nous allons tout droit vers une confrontation parce que ko dem ba fi def question d'honneur question d'honneur la Yaya Jammeh dafa tee dëkk bi na nga xamante ni Yaya Jammeh il a tué trop de personnes man actuellement suñu kër fii euh, Derklé mais ña fa nekk ci ay ci ay gan gambien ëpp nañ bari nañ ndax man dama am dama benn parti moom te ni ay gambien lañ actuellement ñu bëri ñu ngi suñu suñu kër euh, rey na su ma ndiyaay man Yaya Jammeh moom te ni c'était le directeur de de la sûreté de l'État bu Gambie ak ay journalistes ay ñu bëri ñu ñu bëri il tue les gens Yaya Jammeh boo demee banque bi banque am la da ngay jaay kiy jaay yàpp ñu ne yàpp bi yaa yàpp Yaya Jammeh la mburu bi mburu dafay jaay mburu il fait loolu lépp moom moo ko moom dafa woon bu mujj xamatoo li état gambien moom ak li Yaya Jammeh moom l' état gambien c' était Yaya Jammeh li ñu amul justice amul dara lépp c' est lui finalement mu mu demoon ba yaakaar ni moom dafay dee ci pouvoir bi mu organiser élection xam nga yàlla bu la fa nar a jëlee ay pexe mu de organiser élection affaire dem ni xool li ko tax mu félicité Baro sax xam ko situation bi demee nii finalement mu xam ni moom jeexal na ses meilleurs amis bi euh, il y a dix ans ñii la woon Xadafi Mubarak Moubarak lui a donné beaucoup d'armes Kadhafi lui a daf ko jox ay armes yu bëri et également Ahmadinejad bi nekkoon Iran. Mhm. ñun ñëpp dañu ko doon jàppale tey ñun ñëpp nekkatuñu au pouvoir Yaya Jammeh Fidel Castro gaañanam la woon xaritam loon woon léegi décédé na. il est esselé actuellement il est esselé xamuluma ku mu dese Alpha Condé la war wala bu amul relation yu baax ak waa Sénégal mu ñëw Sénégal léegi li ko dese mooy dee ci nguur gi cest à li ko nar a arrivé mooy soit li arrivé woon Laurent Gbagbo ñu capturé ko dem jugé ko wala mu dee ci nguur gi comme li daloon Kadhafi mais actuellement ni gisuma Yaya Jammeh fu mu reculer parce que affaire bi finalement da ko def question d'honneur léegi nag dégg naa ay rumeur léegi nii parce que xam nga période de euh, en période électorale de campagne électorale ak guerre jaa infos information yi dafay daw ci waa les réseaux sociaux information yu bëri ngay gis mhm. mais gis nañu ni ay image ñu mu positionné l'avion présidentiel foofu ci aéroport bi dégg naa léegi ni ñu ni dem na Guinée Conakry c' est pas sûr bu demee Guinée Conakry également Alpha Condé c' est quelqu'un qui est très proche de Hollande suppose bon nañ ñaan bu demee euh, Guinée Conakry Hollande jéem a seet nu mu waxee ak Alpha Condé ñu téye ko fa pour ki gaan bi kii mën a euh, installé wu rap euh, paisiblement bu loolu amul moom dina dina compliqué trop trop du Sénégal te xam nga gan guerre dafay nekk budget la te buñ duggee ci guerre yàlla c'est-à-dire que guerre sax ñun moo ñu arrangé wul parce que dafay impacter sur le plan Sénégal émergent bu président Macky Sall c'est de l'argent ay carburant da fay ay nit da ngay fay ay affaires yooyu day impacter sur l'économie day impacter sur le transport sur l'éducation sur même les élections présidentielles yi ñëw sur la santé y a les qui se déplacent des milliers mhm. tey jii yaa ya dafay nekk bu ñu ñëwee tey jii le chômage Sénégal xoolal chômage bi am nga ñëw encore population ay plus des milliers ñëwaat encore au Sénégal ñu ko gérer loolu situation humanitaire bi mu nar a bu amee loolu yàlla nañu ci yàlla musal daal ah, euh, mais c'est tey euh, beneen point bi nga xamante moom lay euh, soulever léegi mooy Adama Barrow qui tient coûte que coûte à prêter serment si yan condition lay prêter serment bu fekkee ne deadline nu kii minuit la asso yi noppi na pour ñu cong ñan lay prêter serment bu fekkee ne askanu Gàmbi ñu ci bëri daw nañu làqu ji itam mhm. ndax loolu c'était réfléchi wala euh, mu ñu woon ut beneen voie moyen boo xamante ne mënoon nañu contourner li ni mel ba Adama Barrow prêter serment dans la quiétude waaw ah bon xam nga situation bi aussi euh, pratiquement Yaya Jammeh ni mu imprimer le rythme chaque jour day def loo xamante day bett ñëpp ñëpp jàppoon jàppoon nañ ah vraiment le dictateur la bett na ñëpp reconnaître na victoire am ñu dem ba ci biir bon mu génn fi mu génn ne demul démb mu dugg mu ñëwee walla léegi euh, état d'urgence donc day poser acte yoo xamante ne day day day mettre ñëpp day jël ñëpp de court maintenant euh, le discours de Adama Barrow c'est c'est juste une position républicaine war na prêter serment le 19 loolu la ko teg si may loolu la ko lu ay may je pense que mu wax loolu voilà loolu y a rien de grave et puis c'est de bonne guerre moom aussi il faut mu incarner euh, que c'est le nouveau président dafa war a prêter serment entrer dans ses droits donc euh, c'est c'est ça man ci contexte boobu laa ko. mais dans quelles conditions également. voilà conditions yi loolu lu ñuy lu ñuy xool en fonction de l'évolution de la situation c'est vrai que y a le principe de euh, de l'extraterritorialité tey l'ambassade bu Gambie fii au Sénégal. looy légalement bu ko neexee mu mu perte facilement parce que c' une terre gambienne mais loolu sax man du loo xamante ne lu ma gëm la pour asseoir véritablement euh, une légitimité euh, d' un d' une d' responsable élu démocratiquement donc euh, je pense que wax na ko mais la CEDEAO n'en fait pas une fixation façon euh, ñaanuñ ko yàlla mais tey bu fa ay incident amoon euh, ça serait. est-ce que euh, jàpp nga ne incident bi tey c'est inévitable. bon en tout cas daal euh, je continue à croire que yàlla dinañu sutural ba jàmm am Sénégal ak Gambie parce que comme ni ko Mout waxee problème bu fa amee ñun ñooy nekk les premiers perdants du point de vue logistique tey bu ñu doon attaqué euh, Gambie il, il est évident que les troupes sénégalaises ñooy dem au sol parce que ñoo xam la zone. dina may perte mooy sànq na question bi ma posé woon est-ce que nos gouvernants ont tenu compte. si par euh, ca paramètres yooyu yëpp avant ñuy euh, jël. si bien sûr on a beaucoup tenu compte bu fi may wax yow nii y' a pas euh, l' militaire n' pas encore faite ba fi may wax yow nii on reste positif on pense bien que dinañ am ba fii ba fi may wax yow nii y' a y' a des émissaires du du roi du Maroc qui sont là-bas pour négocier donc ñu ngi jiital loolu. président Macky Sall yàggul rek bi muy def déclaration mu ngi naan toujours nañ privilégier euh, disons la transition pacifique loolu lañ gëm ci loolu la ñuy dox maintenant état d'urgence boo ko euh, décrété voilà fermer frontière envahir dëkk bi avec des chariots et autres il faut aussi Sénégal jël ay matukaayam parce que nag quand même euh, c'est une zone euh, frontalière énorme et vaste sénégalais yi nekk fa de part et d'autre donc il faut ñu jël suñu matukaay mais ça veut pas dire que on est là depuis pied ferme on va attaquer on continue à croire que donc euh, dinañ am une transition pacifique mmh. euh, mu tey euh, li indi problème bi yëpp yaakaaroon ne moo doon erreur de communication ki nga xamante ne mooy le nouveau président moo di Adama Barrow bi nouvellement élu rek kii félicité na naam mais mënoon na am beneen stratégie bu muy communiquer que communication bi nga xamante ne moom la adopté woon est-ce que du loolu moo indi euh, kii di Yaya Jammeh def volte face ba situation bi courir nii. si si xam nga xam nga Adama Barrow euh, Yaya bi mu demee ba gis ne Adama Barrow au sérieux mm-hmm. pour moom Adama Barrow day ñëw rek parce que Adama Barrow trésorier la woon bu parti bu Ousseynou Dabo ñu jël ko ñëpp booloo parce que ñëpp booloo rek ñu jël c'est pas un soose mm-hmm. c'est pas te Gambie dañu ne soose ak joolaay ñoo ëpp ñoo mën a jiite ñu jiital ab pël ñu yaay danaan kii du gañe léegi bi nga xamante ni nag jël nañu teg Adama Baro Adama Baro gañe affaire bi dafa bett yaaya ndax ñëpp gars yi dañu demoon ba dañu sonoon ci affaire xeex ay joolaa soose mais Adama Baro bi mu faloo ñu def déclaration moom mu ne gañe na les ONG commencé CPI erreur de communication am na ci côté yëpp. Ah, ONG yi commencé wax par je comprends les ONG parce que dañu yàgg liggéey ci ci Yaya Jammeh parce que toujours dañu am les dossiers des dossiers contre Yaya Jammeh am tamit de de de de de de crime de de crime contre l'humanité de de génocide il a tué pas mal de personnes donc ñoom loolu lañ doon xaar pour jël ko yóbbu ko ces pays boo dégloo déclaration Mankeur Ndiaye bi ñu félicité Adama Barrow dañuy xam ne Sénégal dañoo kontaanoon le gouvernement Sénégal en tout cas Amnesty bu Londres la maison mère def communiqué génne ko pour di wax ni dañuy mettre en place benn dispositif pour jéem a euh, juste euh, rendre justice euh, au Gambien mmh. loolu bi ko yaaya gisee mu gis ni kat moom actuellement ni amatul lu muy def li ko desee mooy mu mu mu mu rese mu ñëwaat ñëwaat en arrière daal di daal di def déclaration mmh. dañuy dafa lànk de bañ bañ kii bi bañ bañ bañ résultat yi mais tamit aadama Adama Barrow après gis ngi ni mu def nekk di toog Gambie di wax ci ay rajo ay rajo privé fii mais am na benn télévision bu ko jël ñuy toog di ko wax naan ko est-ce que di nga seetaan tel tel tel tel comédien mais des questions yoo xam te ni man vraiment j'ai tellement déçu un président qui vient ci ci nga koy poser ay questions sur le Sénégal laajoo ko sur le pont qu'on doit construire laajoo ko sur la crise Casamance laajoo ko sur les relations politiques économiques diplo et tout entre le Sénégal et la Gambie nga di ko laaj yooyu ma gis Adama son son son c'est-à-dire que c'est-à-dire téléphone di wax nekk ci nga dégg xale yi di wax ma ne non kii Yaya Yaya moom Yaya c'est le c'est le Yaya il est pire. Mm. mais kii tam boo moytuwul du du du bon Yaya ah, parce que Yaya moom. mais mm. kii du amul poigne. Mm-hmm. moo tax gis nga ko keroog. les j'ai vu que avant-hier hier c'est son avocat qui la conférence de presse mm-hmm. dafa doon ñëw en tout cas c'est quelqu'un goo xam te ni vraiment war nañ assainir son comportement. xoolaat ko mu jéem a xool naka la ñu war ko def il a besoin de coaching pour mu nekk un véritable homme d'État. Mm-hmm. mais c'est catastrophique quoi Adama Barrow c'est mm-hmm. catastrophique heureusement a euh, nekk un homme raffiné responsable xam ne c'est un homme d'État c'est un président d'un État souverain mu feeñ de par apparence de par façon de faire de de de façon même de parler mm-hmm. mais tel que je le vois dafay dafay et puis gars dañ ko vandaliser la presse ku nekk woote mu jor téléphone am di wax c'est pas c'est pas comme ça. c'est pas mais comme est que tey euh, waa Sénégal askanu Sénégal wala suñu njiit yi sax jàpp nañ ne ak euh, l'avènement de Barro lépp daf leen di yombal ci Gambie ngir ñu mën a def li nga xamante ne moom la ñu bëgg a def rawatina. gis nga alors man man personnellement su ma ci tolloo dinaa laaj kàddu réew mi pour nekk président de la République du Sénégal man bu ma nekkee président du Sénégal awa awa man dinaa def le tout un pro sénégalais mooy nekk président Gambie. xaw ma par façon. ñun waruñu toog ga Sénégal di xool une euh, une personne hostile au Sénégal mu diriger la Gambie parce que Gambie ak Sénégal benn la ñun ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp. président tey ji président Barrow ak président Macky Sall war a déggoo ci naka la liggéey ñoom ñaar waxuma sax bu ñu mënee defaraat Sénégal bi sax ñu def ko mënul ne mais sur le plan économique de ñu xool naka la liggéey parce que français yi ak anglais yi ñun ñoo séparé mais Sénégal ak Gambie benn la naa la suñu kër ay Gambie rek ñoo fa nekk on est des parents donc ñun waruñu toog un président bu mel ni Yaya Jammeh diriger Gambie di def lu ko neex mënu ma la expliquer Yaya Jammeh mais Yaya Jammeh il est dans le même dans le trafic de drogue boo gisee les Américains ni ñu duggee ci dossier bi y a l' ancien chef d' major de de la marine bu Guinée-Bissau bu tudd Boubou Natchito mais da doon jaay drogue jóge fa def coup d' état créé désordre Guinée daw dem Gambie Yaya Jammeh garrek fa drogue bi mu doon jaay da doon jaar biir Gambie les Américains étaient au courant dafa dellu Guinée Bissau Américains yi jënd ay ay benn ay commando ñu wàcc Cap Vert dugg Guinée Bissau enlevé Boubou Natchez yóbbu ko actuellement ñu ngi koy jugé aux États-Unis te il était de connivence avec Yaya Jammeh c'est un homme extrêmement dangereux Yaya Jammeh donc ñun waruñu mm-hmm. ñu ñëw euh, ci euh, beneen point boo xamante ne rek lépp mi ngi aaju woon euh, ci doxalinu Yaya Jammeh gis nañ ne foofu royaume la ko defoon doonul woon sax état. Mm-hmm. royaume la fa ay photom ñoo placardé woon euh, dëkk ba yëpp euh, tey euh, ñu commencé gis li ni mel ci biir réew mi mm-hmm. peut-être que le président de la république du ma wax s'est ressaisi à ndax il a ordonné à ce que photom yi nekk ci mbedd Ndakaaru yëpp ñu dindi ko bon waaw bon en tout cas li ma ci mën a wax daal mooy que ne yaa jàmme je pense que Mour a fait un bon tableau véritablement xam nga pour lu toll ni état ñu jox la ko nga jékki-jékki décrété ko un état islamique xam nga loolu Euh, mesure gën a radicale nga def ko état islamique sans pour autant nga partager ko avec les avec euh, l'Assemblée nationale avec le peuple avec brusquement n'est-ce pas exaction yi ñi mu tëj kaso ñi nga xamante dañuy jékki-jékki disparaître bari nañu donc pour répondre à votre question euh, Yaya Jammeh moom jàppal ne benn dëgg la ci tànk épine la du mm. pied pour le Sénégal mm. parce que tey Euh, pas pour ñu ñëw noggatu gàmmi sax jaar ci koom mais bu ñu amoon rek un état boo xamante ne respecté nañu ñu respecté ko dinañ mën a teg un partenariat de développement économique. Mm-hmm. tey Gambie bu ñu neexee ñu embargo ko ah. ah oui sur le plan aérien comme sur le plan des eaux comme comme comme sur le plan terrestre il faut passer par Dakar. dara mënoo dugg te jaarul Dakar voilà donc mm-hmm. mais ñun comme li mu wax sànq rek nekkul ci vraiment une dynamique d'un état puissant qui l'incarne n'est-ce pas dañ dañ on est un état démocratique dañ leen respecté ci loolu mais Yaya Jammeh en fait trop. mais Yaya Jammeh tamit est-ce que du ñun ñoo ko bàyyi aussi mu def lu ko neex muut. waaw xam nga xam nga paaka ñaari bool la rek. tey boo ñëw noot ko. ndooy xaw na ko expliquer sànq. il fut des temps il il avait des tentacules partout sur le plan géopolitique amoon na ay c'est-à-dire acte en matière de diplomatie looy defee da koy xool. ci waroo poser acte yoo xam da nga koy teg. ci lu réglementaire tey mënoo ñëw attaqué ko noonu parce que euh, voilà dafa nekk dans ses droits loo tax loo gis négotiation la dans le temps ba li nga am nga mën ko am man en tout cas option boobu moom laa gis. mais après di nga tontu ci sama question ne l'acte de Yaya Jammeh a servi de leçon peut-être euh, au président Macky ah, d'accord ok non en fait euh, par rapport aux affichages et tout je pense que man en fait c'est, c'est une mesure personnellement bu may. saluer xam nga l'image d'un président euh, nekkul image bu ñuy caaxaane quoi. tey le président son plus grand projet c'est le PSE saa mun nañ ko bàyyi ah bés bu ko soobee bés bu ko neexee mu communiquer sur sa personne mais bu ñu bëggee ñëw bu jël image président euh, voilà mu nekk genre saupoudrage wala wane ne yaa ngi liggéey alors que dans le fond boo liggéey nit ñi askan bi dañ dañ ko yëg day ñëw ba day banal ci c'est président jeune boo xamante ne voilà mu ngi ci premier mandat soxla na deuxième mandat donc image am en tout cas c' est un point de vue personnel ah waruñu ko banaliser. moo tax mesure boobu bon. c' à saluer lu may rafetlu la. <laughs> Euh, mu tey euh, li ma wax sànq est ce que Yaya aussi li mu yabee Sénégal dañ la naan ni su la yabee ci doxin la Euh, tey ji euh, ñun na dañ ko bàyyi woon trop mu def lu ko neex chaque jour mu jël kàcciri dóor ñu ñu ñëw di ko caresser si sans su poil yi itam ndax tëj na fi suñu frontière jàkkaarloo na ak suñu ay transporteur ak yi ni mel yooyu yëpp ñu bàyyi ko laisser faire Gambie euh, Casamance li fa xew yooyu yëpp ñu gis yaay mi def on laisser faire tey nag ñu ne këtt ne jonn ne jaamaarloo ak moom jot na mais en fait en fait ñun état bàyyiwuñu en fait Sénégal musul bàyyi yaaya ci lu ko neexaan ah. parce que le Sénégal la Gambie c'est un pays souverain qui a un siège aux Nations Unies reconnu qui am am ay relations avec d'autres puissances c'est comme euh, l'Israël Israël dëkk bu ndaw la mais mi ngi sonal ñu ko wër parce que dafa am soutien Gambie ah. tam dafa am soutien. Mm-hmm. Gambie tey jii euh, bu Sénégalais yaakaar ne dañuy dem bon di Gambie non non non. Mm-hmm. mën nga mën xeex yaa xam na ko nga koy ubbee. mais bul xam kañ lay jeex. gambi dëkk bu ndaw la de par la taille mais buñ demee ba Russie ubbi fa base te aujourd'hui ñëpp gis nañu les les Russes naka lañ sonalee américains yi donc nañ def nañ def ndànk yamuñu yam gaa gaa yi Gambie que nit ñi dañ ko euh, li sénégalais président sénégalais li ñu doon seet jomb koo def Gambie moom jomb koo def Sénégal. li président Abdou Diouf wala Abdoulaye du Macky xalaat di ñoom rus nañ koo def Gambien yi Macky moom rusu koo def tey ji bu teree avion oto yi jàll dem Casamance Macky Sall bu tëjee frontières yi mais ñoom duñ dem fenn. mais loolu Macky rus naa def loolu. parce que coow li après ce qui am na fa ay parent ñun am nañ fa ay parents donc ñun dañuy seet ñun ay nit dañu mais yaayaa. mais est-ce que genre nit ku nekk euh, ku mel noonu est-ce que doo benn moment il faut être vraiment radical ak moom ngir mën a saafara ndax euh, góom soo ci defulee alcool wér xoolal ni mu def Tabara Samb ñun suñu diggante Yaya Jammeh jël Sénégalais di ko rey wur woon jël wur woon am su suñu diggante euh, Sénégal Gambie li waroon gën a rafet mooy mu jël prisonnier jox leen ñu tëj leen fii bu bu mënul ñàkk bu mënul ñàkk mu jël Tabara Samb rey ko mais le président Macky meroon na mais tey jii tey jii la ñu moom occasion bu ñu régler problème ndax loo gis tam dafa am temps defetu Yaya Jammeh bi du defetu du nekkul mais c'était organisé mais je vous dis que dem ba élection yi bëgg jot Yaya Jammeh grenier woon Casamance toujours différence bi ñu doon def pour gagner adversaire am doon jóge Casamance ñëw voté si voté si Gambie mais à un deux mois de de la présidentielle ci lañ tëj frontière yi boo déggee Mamadou Diop Decroix demoon na wax assemblée nationale di poser problème coupeur de bois yi ba premier jël parole ni problème boobu dañ koy régler hmm. mais problème boobu ci lañ ko régler mais bu ñu ko régler ba tëj frontière yi amatul jour élection yi amul kenn ku jàll différence bi nit ñi doon def ba bi doon bi doon sotti ko am ci vaaw Yaya Jammeh ba mu doon gagné ñeneen mais différence boobu la ko la ko yaay la ko Adama Barrow gagné ah xam na ni kon loolu moo tax mu perte li gën a tax tamit mu mere ci loolu la mais kanam da ngay nit ki du du du du nekkul da ngay mer xeex da ngay jekku xeex aujourd'hui dañ ko bàyyi ba élection yi jot mais vraiment de ce côté là moi je je je je je je félicite le gouvernement du président Macky parce que même Yaya Jammeh dafa wàññi war a abal. problème mu Casamance Casamance c'est un grenier pour le Sénégal bu wàllu ceeb ba fa am les opportunités euh, touristiques ya fa am mais mënuñu ko exploiter ndax le dossier de la Casamance Yaya Jammeh a hébergé Salif Sadio le leader du de nord de Atika il lui a donné un passeport diplomatique gambien. Saher Sadio da doon dem temps Laurent Gbagbo doon dem vacances Côte d'Ivoire jóge fa dem Iran dem na ba Iran ci Améline Aginjad loolu les services secrets sénégalais yëg nañ ko dañ ay hommes d'affaires iraniens dañ doon jóge foofu déw Gambie def ay formation di leen jox ay armes loolu lépp gars yi nit bi nag président Macky Sall la ko may peut-être que am na yu Abdoulaye Wade jéemoon peut-être am na yu Abdou jéemoon surtout moom la ko may aujourd'hui dañ ko profité ñu xool fu wànnante ji mujjee ki gëtëm ci coow li nga xamante ne kon moom moo am ci Gambie bi ay waxtu yu néew des li nga xamante ne moo di euh, minuit lañ jox euh, li nga xamante ne moo di app kii di Yaya Jammeh dinañ xool fan lay mujje information bi itam dinañ ko topp ba mu leer ci Walfadjri leeru jamono mm. dañuy wéyandi rek ñu dellu si waat kon ci biir réew mi leneen loo xamante ne itam taxaw na mooy euh, coowal parti socialiste coowal parti socialiste dañu gis ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo faree ci nguur gi dañoo gën a jàppal tànk ki nga xamante ne moom moo leen gën a jege kon jox leen loxo muy euh, Ousmane Tanor Dieng te mu nekk euh, coow loo xamante ne si seen biir la ñoom ñooy xeex est-ce que tey waruloon leen nekk à équidistance ci problème boobu. voilà donc effectivement le pour pour le problème du parti socialiste il y vraiment y a beaucoup d'amalgame et de confusion bu si nit ñi di def volontairement tey xam nga bon le parti socialiste pour deux raisons euh, ñun on doit travailler à sa stabilité c'est un parti historique quand même qui a servi le Sénégal qui a formé beaucoup de cadres ensuite c'est un parti allié depuis 2012 on est ensemble donc ñun <laughs> pour ces deux raisons fondamentales wala ñu travailler donc à saper euh, la, la stabilité la cohésion du parti euh, socialiste maintenant il y a des gens qui nous prêtent voilà ñun ñoo ñun ñooy instrumentaliser la justice ñun ñoo semer le désordre et tout mais li li ma bëgg ñu comprendre nga les les partis politiques parti bu ci nekk à un certain moment di nga am des turbulences des moments de turbulence PDS yàggul rek ñu woon fii seen seen siège di jàppante ah AFP am nañ ko fi APR suñu siège yàggul au niveau des jeunes amoon na ay problème mais c'est des problèmes yoo xamante ne on a réussi à régler ça dans les sphères de notre parti mais ce qui est un peu regrettable au niveau du parti socialiste c'est qu'une plainte a été déposée mais si une plainte est déposée ça dès lors que la plainte est déposée mais ça déclenche la procédure judiciaire donc ku neex na takkal ñu tuumal ñu mais fu waaye teg baaraam ñu teg la beneen baaraam. mais c'est que xam tuuma bi lu tax ñu gën leen a singal yi. Mhm. moo di ne dañu am ñenn ñoo xamante ne ci yéen la ñu bokk dañoo génn wax ci ba wasaa te peut-être mënoon nañ cee maandu noppi ci ne suñu yoon nekku ci. non mais attends euh, APR problème parti socialiste bi biñ ci commencé wax dëgg mooy bi les pro xalifa commencé attaque sévèrement le régime de Macky Sall nit ki nag koo koo xosi. xuli ko kurpeñ ko mais bu yàggee mu mu mu mu fay réagir loolu la mais bi problème bi amee kenn déggu ci d'ailleurs d'ailleurs bi bi histoire bi amee noonu mais toog nañu huit mois après huit mois après mu doog a am aboutissement judiciaire ñu doog a interpellé et nit tey huit mois yooyu yëpp da ngeen dégg waa APR wax ci wala ñu yéey ci yàbbi bokkuñ ci parce que c'est un parti politique légalement constitué qui ont des procédures internes APR encore une fois de plus le président Macky Sall n'est pas lié ni de près ni de loin à ce qui se passe au parti socialiste. Mhm. loolu moom dama bëgg mu leer clair. tey Mout euh, su ñu gisee doxalinu parti yi nga xamante ne moom mooy xaajaloo yi am euh, ci parti bi rawatina parti yi nga xamante ne dañu jàppoon ne c'était les potentiels adversaires du chef de l'État euh, tey président Macky ci peggu Abdoulaye Wade la màggee tey ji ndax njàng mi mokkul ndax gis nañu ne. ñi nga xamante ne ay kujje gi lañu bokk mu ngi leen di xaajale benn par benn te coow jibul fi mu nekk nii commencé na ko ca parti socialiste PDS dégg nañ leen fan yi manko coow juddoon na ba mu xaajaloo itam hmm. non mais xam nga ay euh, awa gis nga dama dégg ko ni Macky dafa am défaut Abdoulaye Wade yëpp te amul ay qualité am euh, Idrissa Seck moo ko waxoon waaw gis nga problème yi am ci parti yi may koor mm-hmm. Macky Sall la du kenn dafa dafa recevoir en benn kilifa kooku ne ko président euh, parti yëpp tas nga leen mais na nga fexe ba ni nga leen def man bu ma ko def ku jigéen temps yi amoon na problème coow lu rëy ak ñoom ñaar bi mu ko président waxee loolu bi mu waxee loolu président président ne ko nii du ma seen morom <laughs> mu limal ko parti bu tas loolu la ko président def président Macky bi mu faloo xam na ne amul parti parti APR parti bu ndaw la mu am coalition Macky 2012 jël nguur gi ñëw toog xam na ne gis na ne amul appareil d'ailleurs bépp mu nekk au euh, président de la République secrétariat national rek ñooy ñooy réunir pare permanence APR di nga gis Macky dem fa def fa kii am permanence am sax amul du fa dem donc il n'a pas de parti léegi stratégie pour mu am deuxième ba ko falee premier mandat lay wut deuxième mandat lenn la mooy day dem 2017 2019 ok loolu c'est réglé na ko il faut que mu affaiblir les grands partis. Mhm. pour jël léegi stratégie Macky il ne compte plus sur l'APR Macky président Macky Sall faaliwul APR non non non non Macky faaliwul APR da ngeen gisoo amul benn ministère bu bu waa APR dirigé amul benn institution bu waa APR dirigé du assemblée nationale. au conseil bi euh, du militant APR du au conseil du ko du dara joxul da dara Macky Sall faaliwul waa APR stratégie bi rek mooy. tas parti yi ba ñëpp parti yëpp mel ni APR mu jouer sur les personnalités politiques influentes jéem na ko ak ak ak PDS xaaj jaar groupe parlementaire def PDS am ñu quitté am na ñu bëri ñu dem fekk ko mu ña ña gëm Ablaye des fa mu ñëw APR jël Moustapha Niass jox ko ay teraanga Moustapha Niass ni du dem élection présidentielle gàkku kii jeune am ambition bëgg dem fipp ndax len la soit dalay tëj créé la problème jiiñ la sàcc wala ni mënul mu mu mu mu mu ger la ger kenn ki yéen nga toog parce que Moustapha Niass jox na ko toog na. mu ñëw jox ma euh, Tanor. Tanor gis ni Khalifa Sall gis ni moom jeune la am na ambition bëgg na dem waa ji narul dem. mais xalifa fippu ñu ne nag nañ créé xalifa xalifa depuis 2000 xalifa ab Macky Sall moo gën Ablaye Wade moo gënoon positionné pour créer le problème xalifa xalifa nee na xalifa lu mu teg gars yi teg lu mu teg gars yi teg même bu defee emprunt obligataire pour marché pour mairie de Dakar yi créé parce que Macky dafa bëgg dem élection moom kese gagné tour dem am deuxième mandat moom rek bu sañoon kenn nekk candidat moo tax stratégie yëpp dina ko def song nañ fa Idrissa song nañ fa Abdoul Mbaye dugg ci biir famille vie privée am jaxasoo ak jabaram jël passeport am Idrissa di ko sàcc ay di jiñ ay 74 milliards Karim dem na kenn xamul kan moo fi def ni boo moytul man lay jàkkaarlool ma ñëw nekk Adama Barom nag gañe ko <laughs> léegi léegi loolu bu jàll loolu loolu bu ah. jàllee tey jii moom tey jii bu bu defee pexe yooyu yëpp pour jéem a sexe nu mu nu mu nu mu nu mu écarter ñëpp tey jii li nekk parti socialiste c'est lui dès le départ moom la lii c'est les conséquences mais départ bi moom la. mais est-ce que tey euh, tey Tanor euh, tey Tanor xam nañ ko c'est un homme d'État. Tanor n'est pas un homme d'État. Il faut qu'on arrête de dire que Tanor est un homme d'État, c'est quoi? Tanor Dieng, il a été ministre des affaires présidentielles au Sénégal. Tanor Dieng n'a jamais rien fait au Sénégal pour Tanor Dieng lu mu fi def du école déglu ma du école du tali non déglu ma déglu ma wax du tali du dara Tanor Dieng il faut que les gens arrêtent de nous dire que Tanor Dieng est un homme d'État il est il est un homme de comme de quel État il faut que les gens arrêtent un homme d'état mu nit ku liggéeyal sa réew tabax ay tali tabax ay école tabax ay hôpitaux ak nit ñi non mais tey là euh, il ne fait que chauffer le fauteuil il est le il est l'éternel partant partant du parti très bien très bien moo tax Abdou Diouf tat élection yi 2000 tat le 2007 pet 2012 bëgg a pet mais loolu xel sax nangu ko xel nangu ko et puis Macky Sall bu jugee ni ni sëriñ si c'est des citoyens ordinaires ñu ne nii mu jël béykat def ci kaso bi ñu ne ñii mu jël sëñ Assane Mbacke surtout surtout sëñ Abdou sëriñ Fallou Mbacke def ci kaso bi ñu ne ñii mu jël Bamba def ci kaso bi mais Bamba Fall waroon na koo rusé sax turam bi lii de li mu def rafetul ndax ak génn ci parti politique yi biy def plan pour tas na jéem a renforcer son parti pour seet nu mu amee deuxième mandat euh, euh, mais euh, Mayakor tey dégg nañu mu li mu wax nee nañu le président Macky Sall dafa ñëw pour tas li nga xamante ne moo di parti pour ne pas mm. avoir d'adversaire en face de lui mais tey est-ce que xel mun na nangu tey le président Macky Sall war a mun a jàkkaarloo ak Tanor mbakkuus war a taxtanoo euh, yàq legu li nga xamante ne moom moo di euh, Léopold Senghor legu euh, Abdou Diouf ak yi ni mel. waaw bon xam nga pour man vraiment je suis désolé mais il faut ma yemale la quoi. parce que xam nga dafa soo taxee fii ne voilà Macky Sall am na ku mu recevoir woon nee na ko nii nee na ko nii na ko nii loolu c' est débat xam nga tey su su ma neexoon loolu c' est contre contre vérité amoo ci benn argument c' est booy def un débat da ngay ut man su ma neexoon ma ne la keroog seeti naa Idrissa Seck dina ma lii dina ma lii cest à loolu nañ nañ ko teg fële xam nga il faut que ñu xool euh, euh, le début c'est important ñun bu ko neexee mu ne amuñ <laughs> moo nekk le point de départ de tout les 26 pour cent c'est l'APR c'est la coalition Macky loolu kenn amu si ñoom ku ci nekk tu étais candidat à quelque chose non ma ñëw dama ne ça c'est pas scientifique dama ne dama ne dama ne li may wax xam naa ko bu ti bu ma waxatee nga may coupé. mais Macky 2012 du affaire bu ma coupé bu ma coupé. dama ne la Macky 2012 du affaire bu ma coupé c'est la coalition qui a porté le. waaw waaw donc les 26 pour cent c'est pas l'affaire. non defal naa ko rek li may wax xam naa ko. le parti là. L'APR n'a jamais participé à une élection. depuis sa création. da ngay wax lu ne. L'APR seul toujours bu créer des coalitions dekkal ngor ay Macky 2012. waaw mais mais L'APR n'a jamais n'a jamais fait une élection au Sénégal. mais yéen yéen actuellement. vous êtes dans la coalition Wattu Sénégal. vous êtes la coalition Wattu Sénégal les coalitions boo bëggee dégg-dégg c' est l' avenir de euh, est l' avenir de la politique tim mun ban nag may may ma eggale sama argumentation cest à bàyyil sa discours fallacieux la l'illusion dem naa diw nee na ma lii dégg naa kee nee na ma lee loolu ça tient pas xam nga ñun euh, yàlla daf ñu jox 26 pour cent ñu jiitu ñoom engagement bu ñu am ak la coalition Benno Bokk Yaakaar ku jiitu ñu jàppale la on gouverne ensemble mais loolu góor moo koy def c'est c'est dans cette dynamique là lañ nekk ba tey on a gagné ensemble on gouverne ensemble n'est-ce pas mais tey euh, Moustapha Niass muy Ousmane Tanor Dieng muy muy muy muy muy ñoom Malick Gakou muy ñoom Khalifa mais ñoom ñëpp à un certain moment <coughs> mais ku mu neex nga am ambition c'est de bon guerre mais boo amee ambition tu l'assumes nga assumer ko euh, jël ses responsabilités pour atteindre les les objectifs yi nga fixe sa bopp. mais euh, Macky travaille à consolider la coalition qu'il la portée au pouvoir ci loolu au-delà de transactions politiques politiciens mais yëfu gor la yow Macky yow suñu àndee xeex ma jël engagement ne la su ma gañee ñu ànd yor nguur gi mais yor nguur googu dañ ciy nekk mais bu dee nag ci biir parti boobu noonu daf ci am koo xamante il a une ambition présidentielle et qu'il quitter mais loolu. Macky Sall mais xam tey lan moo leen xelu askan wi par exemple moo di ne <laughs> à quelques mois des législatives ñu mettre en branle procès wu Barthélémy Diaz jël ñi nga xamante ne ñoom ñoo di les Bamba Fall et autres jëlaat seen procès mettre sur la table euh, convocation yeeg yi ni mel ba tey ñu mandat de dépôt leen loolu moom mooy leen tuur xelu askan wi ne pourquoi mu am immixtion boobu itam ñuy njortees ne Euh, li nga xamante ne moom moo di yoonu réew mi tey jii dañ ko instrumentalisé. waaw njortu la rek njortu la ak des propos d'opposants mais tey ñoom Bamba Fall en tout cas li ñu gis le 5 mars à la maison du Parti socialiste le dossier en cours duma ci dugg trop mais li ñu gis mais c'est des jeunes yu sànni xeer di saaja di toroxal ay doomu adama yoo xamante ne c'est des ministres de la République mais. même mu dul loolu. mais ça a toujours existé dans les partis. mais ça a toujours a pas récemment siège APR xeexoo bi. dóorante bi waaw mais on a réglé ba ki gàddu xeex te fële peut-être. gis mais on a a dans les sphères de notre parti. y' a pas une plainte qui a été déposée fii nag le parti socialiste ñu déposé plainte. mais dès loolu que la plainte a été déposée mais il faut que la justice statue sur ça. mais c'est le cas que le procureur mënul woon autosaisir également. en tout cas en général les procureurs duñu autosaisir ci effet parti politique. en général en tout cas man ci ci sama connaissance ak sama sama histoire mais nag plainte bu amee nag il faut ñu ñu ñu ñu wax ci Malick Gakou yàggul dara am na ndaw APR bu mu porté plainte xale bi ñu oo ko ba ni may waxee yow ne mu ngi jaabante tribunal di ñëw. plainte bu amee àla kul ali nga bokk opposition comme nga nekk pouvoir mais dañ lay dañ lay dañ lay o déglu la mhm. mais bu dee ñoom ils n'ont pas réussi à avoir l'opposition je parle de l'opposition am ay assises am projet de société bu leer nañ ko uti te ñu bàyyi le président Macky Sall amul benn erreur bu mu def amul benn problème bu mu andi ci dëkk bi dudul consolider sa coalition ngor joxe kàddoom respecte kàddoom maintenant dans dans. yaa ngi wax waxee. Ah, ma ñëw maintenant su su ci ci ci boo xamante ne ànd ak Ousmane Tanor wala ànd ak Moustapha Niass ci biir am ay ndaw yoo xamante ne dañoo am ay ambition présidentielle à mais bu la neexee ñu créer les condition de le départ c'est ce qui est en train ba ci référendum bi Ousmane Tanor dafa wax oui Niass wax oui mais ya a des gens seen parti yu wax non terewul on les a battus à plate couture xam nga lan la dañoo bëgg a falu. dañoo soxla nguur ils sont en de créer les conditions de rupture de la départ mu loolu mooy dëgg Macky Sall mënul muus am stratégie ba élection jot moom kese bu nekk fi ala kulli àll dina am ay adversaires yu mu jàkkaarloo ci du doon yow maintenant maintenant je termine par là uh-huh, uh-huh. maintenant ñun on n'a pas de problème bu leen neexee ñu am coalition wattu Sénégal n'importe quel d'ailleurs euh, le baromètre baromètre bi mooy euh, le référendum on avait toute l'opposition toute l'opposition confondue contre nous avec une, une violence verbale extrême ñu ñuy taxé même de góor jigéen mu c'était vous n'est-ce pas euh, dénaturer complètement les réformes là. mais vous avez répondu autrement tout ça. Mm yi jox nañu gëdd ànd ak ñun ci suñuy réforme donc nga war a xam ne mbir mi. stratégie stratégie bu doon stratégie rek mooy tax nit toog kon Ablaye Wade du daanu kenn gënu ko stratégie kenn ëpp ko xaalis mais sénégalais aussi foog ñu respecté leen seen choix c'est important. Mhm. dañoo def choix sur une coalition jox leen pour cent pour ñu toog doxal mais choix boobu day Macky choix boobu kese moom moo ko tënk actuellement mu ngi jéem a xool mu def ba choix sénégalais yi noonu. Uh-huh. mu téye ko doxal ko en tout cas. bëggul problème jóge ci moom. Mahécor euh, Mout euh, pour clore rek ku ci nekk une minute euh, tey gis nañu ne manko wattu peut-être yëngu-yëngu yi faible na te ñu ngi man li nga xamante ne moom moo di élection yi déggatuñu ñu wax ndax est-ce que du cassure bi nga xamante ne moom moo ci am moom moo indi loolu. non non mais en fait euh, manko wattu Sénégal amul na problème dañ ko créer coalition la du coalition bu war dem élection élection bu ci dee ku nekk mën nga génn. def sa coalition Manko Sénégal dafay des pour ñu xeex pour am processus électoral la défense des libertés ak protection des ressources processus électoral bu crédible maintenant am na ñuy liggéey pour mu nekk pour coalition électorale mais loolu amagul mais loolu taxul ñu créer bon na man euh, waa ji dina nekk président dina nekk candidat te du jàkkaarloo ak man mais loolu yàllaa ci xam yàlla moo xam ce que je voulais dire rapport ajouté par rapport à la crise au passage mooy euh, euh, nit ñi opposition bi ñu ngi xeex kenn gisul Khalifa Sall rejoindre opposition bi. ñun surtout man personnellement ak Jubbanti Sénégal dañuy jàppale Bamba. marche bi ñu préparé def ñu ñun dinañ ñëw ci kanam ñun waa Jubbanti Sénégal jàppale Bamba. on a vu Jean-Paul euh, euh, Barthélémy Dias xeex bu opposition bi def mu taxaw ci. Khalifa Sall mosut a taxaw ci benn xeexu opposition depuis 2012 peut-être dafa yaakaaroon ni lii du ko dal il faut que tamit ñii ñuy solidaire moom depuis 2012 pouvoir bi ñu ngi koy bund nga xam ne il c'est un na génn mouvance présidentielle bi ñëw rejoindre l'opposition xeex pour jéem sauver le Sénégal parce que ñëpp xam nañ tey ji problème yi ñuy nekk di dund dans tous les secteurs dans tous les secteurs c' pas régime là moo mën a régler le problème des Sénégalais mm-hmm. nañu booloo nekk benn jëlee ko pour mën a sauver notre pays mm-hmm. Euh, merci euh, may encore en 30 secondes. Euh, le Sénégal se porte très bien. Mm-hmm. Maud Bane bi ñuy doog a ñëw fii on avait trouvé 573 mégawatts vous avez tout réglé non attends ma ñëw on n'a pas tout réglé tous les problèmes mais je vous dis que. il y a plus de chômage. dama ne il y a plus de coupure d'électricité il y a plus de coupure d'eau. Ah, mais les jeunes travaillent. je termine. personne n'a pas réglé tous les problèmes mais on a réglé le problème de l'électricité n'est-ce pas on a un programme ambitieux qui le PSE animé au budget national. actuellement le Sénégal ala kuli ali day dem kenn mënu ko téye yéen nag. non je termine par là. Uh-huh. seen coalition yi. non non oui non vous avez tout réglé. seen coalition yi non je termine par là je termine par là seen coalition yi. non essayez de faire. vous avez réglé vous avez tout réglé le problème de tous les Sénégalais. je termine je termine non en fait c'est juste c'est juste des suggestions. man je je vous suggère. ngeen jéem a am un projet de société. quelle est votre contribution sur le PSE quelle est votre contribution sur le PUDC. absolument rien lu dul nihilisme total. c'est c'est c'est c'est c'est regrettable. jërëjëf euh, mais c'est ça. jërëjëf euh, Mout Ban euh, jërëjëf Maysa Mayakoor Diouf naan ko Joko Njala Paax ñuy jaajëfal bu baax Oustaz Assane Diouf ci coordination bi. di jaajëfal Cheikh Tidiane Diop René Charles Fall ñu fare woon ci régi bi di leen jaajëfal yéen ñi sa leeru jamono wal fajri seen émission célébé yoon àllaba bi di ñëw bu soobee suñu borom di leen ñaanal fanaanu jàmm ak salaam te di ko sàkku ci yéen